aje if everybody is good rek uh, we go uh, salaamaaleykum uh, Abdoulaye Diop salaamaaleykum Yacine Pouy salaamaaleykum internet yeeg auditeurs yi déglu RFM 94 point 0 la rajo de toute l'actualité ñu ngi leen di kontaane li nga war a jàng ci anglais du loolu de. la war a jàng. nu ñuy waxee salaa boppam. nu ñuy waxee Mouhamed salaa nu ñu ko mën a waxee lu dugg ci boppam. <laughs> ok yee Salah. loolu nga war a jàng ci anglais. Ndiaye. nañ ko mën a waxee loo xam ne dina ko dégg. njaay nag boo bëggee dégg-dëgg. Eh. mooy équipe boo xam ne yaay champion d'Afrique. Hmm. boo demul coupe du monde loolu dina góos de bu ma wax ay waxu italien ngi nii jël euh, Europe te demul non non équipe champion d'Afrique ñu ne yaa gën ci Afrique yaa ci gën a cher yaa jël numéro un deux ans ngay jël numéro un ci classement africain te vraiment euh, yàlla nañu yàlla may ndam daal yaay daal man ah war nañoo dem coupe du monde yàlla de lu gën rek lay def ci jàmm. non fi ñu toon fi ñu ko yóbbu. Mhm. non euh, dama lay expliquer. ba ñu ko songee Cameroun. ca la gënoon a compliqué. Mhm, mhm. ñuy ñaan àndandoo xool yi doon benn ñëpp taxaw ci ginnaaw équipe bi lu waaye man def ca lu waay mënul def ca ñii jaay seen oto dugal ci ñii vide seen meuble kër dugal ci. maa ngi nii de ñii fayee ko weer Futurs Médias dugal ci. ba tey remboursé wu ñu euh, maa ngi nii toog xarmat euh, techno dugal ci garaawul dégg nga. SSP dugal ci. donc yooyu yëpp effort yooyu yëpp yàlla ñëw fay nañu ko de kii ñu ko ñu fàtte woon liñ ci defoon yëpp waaw. bii it nañ ñaan yàlla am ndam rek. te bii maa ngi commencé waat nànk-nànk di jaay. nañ ñaan yàlla am ndam rek. waaw maa ngi jaay samay bagage nànk-nànk fi ñaan yàlla am ndam rek nu yàlla may ndam. man day damaa man safaan wa sax laa xalaatu. yow xalaatoo ko de déedéet safaan bi sax xalaatu moom. de da ngay nit de moom booy wuti moom da ngay xalaata am moom. Aziz Samb moo ko doon wax. mel na Aziz Samb mi noon RTS. Mm-hmm. Mm-hmm. nee na boo yoree fetal di diir ci kaw da ngay diir weer wi boo ko jamul jam ci biddiw dëgg la de dëgg la de loolu la yàlla baax na Ndiaye maa ngi lay siyaar bu baax delloo siyaar bu baax a baax nuyu waa Sénégal mhm. sant leen gërëm leen rafetlu ni ñu ànd ak maa ngi nuyu également passe partout maa ngi nuyu di la di nuyu Ndiaye maa ngi sant bu baax a baax di nuyu auditeurs yeeg internet yëpp di ziar ñëpp mbaa lépp jàmm waaw mi ngi cool bon chic bon genre sa paa yi nga yor am lu ñu la wax ci mat football du sa yëf. non même non même budul lool sax ay kii nii gis naa lii gis naa lee. Hmm. boo gisee nag. non doo ko wax. yow yaa gis. noo ñii gis sax maanaam ñii jàpp ne gis nañ di ma ko wax. waaw ah. non man de kii ah ma dem ñu xoolal ma wax ma gis nañ lii man <laughs> nekk Sénégal naan du ma yéen da nga ne ñemee garaaw garaawlu euh, kii Ndiaye la <laughs> la partenaire yi wax ñuy bi ñuy gis politique bi ñuy gis journaliste ñuy gis ay gis kat lañ ay gisaat kat lañ te duñ gis seen bopp duñ waaw ah, waaw duñ gis seen bopp <laughs> ñuy gis lépp ay boo fi gis ah. at mi dañ ko ci génnee location deux fois waaw mais xanaa gisul bayeer bi bi muy ñëw la la partenaire yi wax ko bëgg ñu démarrer ko téléphone million wala optique vision Vision Plus Sénégal. ay ca nañ tàmbali ak waa Mion. Mion gaamu téléphone boo xamante ne ji dafa am téléphone Android am téléphone simple amit ay tablette Mion boo ci jël yaakaar ne moo gën ba ca des ñu ñëw ci gaamu téléphone Mion lu ci mel ni Mion q onze am na Mion euh, Mion Q11 bi vingt mille lay jar Q13 bi di jar. Euh, vingt-huit mille francs fa kese mi yoon haute euh, trois di jar quarante-trois mille am na haute deux trente-huit mille lay jar loolu mooy million yi ma ñëw ci bi nga xamante ne ji moom mooy jar vingt-sept mille francs CFA wax leen la ca nekk mu di téléphone Android 10 euh, 4G cinq point 5 pouces mémoire 8 giga RAM 2 batterie bu mën a yàgg ndax 2800 mAh la muy jël nag ñaari carte SIM Euh, sa empreinte digitale di ko tijji wala sa Face ID ngir wàllu sécurité téléphone bi am na it beneen boo xamante ne ji mooy bi jar vingt huit mille moom it Android euh, dix la cinq point cinq pouces mémoire huit giga batterie trois mille milliampères ñaari puces lay jël ba noppi doon 4G. mboobu mooy Mion Q13 téléphone Mion yi euh, fu ngeen dem ci réew mi rek ci jaaykatu téléphone laajte leen Mion. Euh, mu di téléphone boo xam ne bu ñu la ko jaayee dañ la koy garantil un an douze mois ndax wóolu guñu wóolu téléphone yi am nag service après vente boo xam ne muy téléphone Android yu mu yoon muy euh, téléphone simple yu mu yoon maanaam fitéphone yi wala tablette yu mu yoon boo ko jëndee am lu ci sëkk da nga ko yóbbu ci service après vente bi dinañ la ci taxaw ba mu mat sëkk mi ngi Grand Yoff euh, en face église Saint-Paul numéro téléphone service après-vente bu Mion 33 la 827 37 96 33 827 37 96 beneen partenaire bu ñuy àndal ci xalaas keroog damaa dem seeti Optique Vision Plus Sénégal bi nekk mbuur mais damaa kontaan li ma njëkk a kontaan mooy ay doomi mbuur la ñu jël ñu di fa liggéey donc euh, seetlu wuñ ko mais lu am solo la. Mhm. Optique Vision Plus Sénégal showroom bi mi ngi Dakar Cypress de dend ak hypermarché exclusive euh, am nañu boutique Kër Mbay Fall am boutique bu bees tàq bu ñu ubbi Touba ak bi ma wax sànq Mbour nekk. Euh, Sali Carrefour jàkkaarloo ak usine glace bi lu ngeen soxla ci ay lunettes paire lunettes wala accessoire lunettes ci ay njëkk yu yomb lunettes yu garantie cadre lunettes yu rafet te wóor. dem leen Optique Vision plus Sénégal ñoo ngi leen di xaar bés bu nekk du lundi au vendredi de 9 à 17h samedi bi dañuy liggéey 9h ba 14h ngir rek taxawu leen ci seen soxlay lunettes Optique Vision plus Sénégal lunettes partout et pour tous la ñuy wax jël leen seen numéro téléphone 33 821 54 57. 33 821 54 57 wala portable bi 77 479 63 38 di nuyu waa Octivision Plus Sénégal Mbour bu Touba bu Kër Mbay Fall ak bu nekk fii Dakar. ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp et puis ñu ngi def lu am solo moo tax mm. ñu war a teg suñu loxo ci entrepreneuriat gi maanaam ay doomi réew mi bu ñuy investir ci réew mi teg ay projet di créer ay emploi ñu dañ leen a war a dimbali yokk leen euh, la force bu baax a baax a baax. et c'est très important. Euh, classe express. Abdou Diak Abdou Diak moo nekk ca Touba xel comme accessoire. Abdou ah. waaw euh, ku ñàkk kersaa ngi noonu. dama ko ameel ñaari montre mais moom la may fàttali nii en direct ne ma ñaari montre MP nopp <laughs> Abdou Diak waa Touba xel comme maa ngi leen nuyu bu baax ñoom Laay Diak ñoom Ibou maa ngi leen di bu baax Abdou ku ñàkk kersaa ngi noonu. waa waa ñu dem ci classe gi. waa waa ASC Bruit. Mhm. waa

ba pare njaay ñu bàyyi xel ci billets yi dafa inaccessible ba nii may waxee ak yow nii nit ñi ñu ngi wër ay billets yor seen xaalis. mënuñu bi billet buñ ko maye woon day gën a compliqué c'est comme dañuy jaay nii euh, kenn gisul buñ ko maye woon day gën a compliqué beneen bi ci topp mooy mhm. nañ dugg ville dugg ci banlieue bi mhm. dem ci région yi dugg Tëngéej mhm. xool équipe yi nawetaan yi fa ëpp ambiance ëpp fa maanaam biir wi ci wàllu supporter <laughs> ñu sensibiliser leen ñu ñëw ci stade bi segam entraîneur équipe nationale mi moom mi ñuy xaar ci teg tactique teg jeu teg moo xam ni supporters yi ci la ñu bokk. Mhm. kon supporters yi war nañoo bàyyi seen xel ci seen bopp. wax ko ci wolof yu wër péng. wax ko ci wolof yu wër péng ñoom Mamadou Mouhamed Ndiaye ñii. waaw journaliste yi nga xam ni fu nu dem yaakaar nañ ni seen accessoire bi njëkk mooy costume a cravate mu ne leen dimbali leen ñu bu ngeen ko mënee summi summi bu ngeen ko mënta summi toog leen ci fan zone yi bàyyi ñi nga xam ni bu dara xewul dañuy ambiance maanaam ñun immature yi ñun. ñi nga xam ni suñu baat deew ak mu neex ak mu naqari la ñu yemal dañu yuuxu dimbali leen ñu ngir yàlla yonent bi ñu fexe ñooñu accessible ci billet yi dugg ci stade bi yomb leen ñu wër stade bi fees ko del naari bu ñu déggul ñu gis te buñ gisul duñ duñ mën a dugal waaw effectivement loolu de am na moom ah, très important dama la koy wax fii de expérience la leen gën a rey Cameroun li Cameroun yi nekkoon ci ginnaaw Sénégal bokk na ci dëgg la de leen gën a rëy rëy Cameroun dëgg la de li Cameroun yi nekkoon ci ginnaaw Sénégal bokk na ci dëgg la de yal nañu yàlla may dem paas li ma la mën a wax daal mooy ma nekk ma fédération man ñu ngi may wax di ma laaj bii rek te man jaay ma bii. waaw <laughs> fu ñu jëm. Aba. <laughs> Euh, mhm. li fekkoon na daf may fekk fi woon fàttali ko xalaas bi waa ji fi jóge woon demoon Sierra woon. waaw. te ñu woolee neen dee na xam effectivement waaj génn àdduna ba mhm. koor bi ñëw na ba rob nañ ko. Mhm. même fait. mu amaat même tactique mu amaat Côte d'Ivoire. ci naka. Ndiaye dafa am benn waay bu nekkoon fii ci village yu nekk fii ci département bu Mbour. waa ji dem la woon fexe ba yóbbu seen benn mbokk. bi mu yóbboo seen mbokk bi mbokkam bi mu jegee boo xam ñoo bokk benn dëkk ci ay liggéey comme yii rek ñuy wax ni ay ñëw faye ko 460 000 entreprise bi nangam ak nangam. jour bi mbokk bi demee seen famille yó yóbbuwante nañ ko cent 000 diggante 3 jours. ci defum formation ba yaa ngi koy fàttaliku. ba ñu dikku ne ko dañ ko yóbbu États-Unis na joxe 1 million cent diggante bi ñu koy laaj 1 bi. ci suba sa ñun leen feebar na comprendre nga. Mhm. te ki leen koy wax mooy mbokk bi leen yóbbu moo jël téléphone am. Mhm. feebar ah. waaw feebar na ñuy lijjanti lu ko jotal lu ko jotul ñu xëy na leen dee na. allahu comme ça. Hmm? ñu ciy jug ci daan ba xalaat ko fii ba gaa yi jug ci daan ba indi nañ koor ba rob nañ ko. effectivement dafa faatu. faatu na bi muy njëkk jaal jàll sax gëmuñu woon ne faatu na. Mhm. kii nag balaa mu egg foofu tam ñu teel koo wax. moom it yóbbu nañ ko Côte d'Ivoire ay copains di diggante ak moom ba xëy rek. benn waaye di wuyu si téléphone am neneen saa yi dafa feebar ma nga hôpital bëgg nañ koo gis moom mii am na ay mbokk ay nijaam yoo xam ne ñu ngi Côte d'Ivoire bëgg faa dem mais leen waaj di tontu boo ko dégloo nga xam ne yaa problème est-ce que copain mooy njëkk a wax ba pare après ñu indil la waaj yi nga xamante ni moom moo fa nekk ci hôpital bi nee na moom rek moo ko mën a gis ñu déglu déglu saa man man dafa ñëw rek ne ma saa man dama bëgg a dem Côte d'Ivoire mu ñëw gaale ñu toog mun ma saay man le le treize. voilà le treize da da dama war dem kii nii euh, Côte d'Ivoire. mais foofu la yem man quoi expliqué wu ma réalité supposé expliqué wu ma dara lu leer. man nag pour man bi pour man ginnaaw ba di dem Côte d'Ivoire voilà ma ne ko man man sax nee naa ko yow loolu c'est normal. parce que parfois tamit yow nga changé dëkk. loolu yow day solo quoi boo toogee ci biir réew ba mu yàgg nga demaat ci beneen réew dina la yokk connaissance et tout quoi. foofu la yem man quoi. mais waxuma ci affaire société waxuma ci dara quoi bi mu demee toujours àgg rek ci la ma envoyé vocal dama saay fii moom saay macha allah man bi ma ñëwee man waaw gis naa sama bopp quoi xam nga gis naa sama bopp après mais ginnaaw sama xar la et ma réconforté ko ne ko voilà ma ne ko yow taalibe Serigne Touba nga da ngay gis sa bopp incha rabbi yow gën a la yegg la rek parce que man xam naa la ci émigration man baa man munoo yegg rek premier jour ndax dëkk bu noo ma def mu gane la munoo yegg premier jour deuxième bi euh, yow nga bëgg gis sa bopp man après xaw naa am du tuuti quoi man bugguma di gaaw di accélérer ci ay mbir yoo xam ne nii du ma ay preuve sama xarit la sama lépp la nag vraiment mais dama ne kon ginnaaw am na mu am ay gars yu mu contacté yu nekk ay noir sud et di leen proposer ay job di leen dafa am entreprise bu nekk fii nii xam nga buy liggéey ci affaire location et tout boo ñëwee fii dal la la signer ay contrat et tout yi noonu bi ñu ma contacté di ma laaj ndax ñoom dañu ma xam ñu envoyé message ne ma yow plus souvent dañuy gis yow kii nga ko estati te sa copain la nee affaire yooyu expliqué ma ne ko waa xarit la si bi ma expliqué la a ngi noir sot ñii ngi noir diw ñii xam ngeen la ci xam ci tukki kon tey bu fekkee am na entreprise boo xam dafa war a jóg pour def euh, benn politique euh, d'employabilité benn politique bi nga xam ne tey jii maanaam euh, da dafay def pour pour jàppale nit ñi ci affaire emploi waa def boobu ñoo ñoo ko gën a soxla kon peut-être waaj dafa juum adara léegi nag bu fekkee wax ba bu fekkee da leen envoyé message na ngeen na ngeen ko ramener dans le bon chemin wax ak moom xam nga parce que loolu lu am solo la quoi mais nag man taxul tim ma ma ko ci dara parce que tim du man du ma précipité ay côté trésorier sama benn copain bi interpellé may ne ma est-ce que xam nga ne yow sama waa essence yi dañ ko kidnappé ma ne ko loolu lu a nekk euh, ça fait trois jours euh, maanaam am benn gars bi tudd Babacar bu koy woo dine saa yi dafa feebar actuellement voilà dañ ko war a financé kii nii six cent mille francs affaire na pour fay euh, médical kii mu garab yeeg médicament yeeg tout et quoi xam nga di expliquer noonu ma ne ko yow yow saa yi loola la wax mu ne ma waaw ma ne ko dëppale yéen a ci dégg te waaw ma ne ko actuellement fu ngeen toll ci relation bi après tout ak gaa yi nga xam ne yëpp ñoo ci nekkoon voilà saa waaye nag instant bi mettre leen en pression quoi il faut ngeen dina xaalis beeg yooyu noonu ma leen voilà léegi ce qu'on va faire mooy lan voilà nan ci ñaan ni dégg nga bu baax te waaj bi mu fi jógee dem Ndiaye dafa feebaroon ba ñu opéré ko ci bopp bi hmm. dégg na xam nga lu garaaw. Hmm. mbokk yi di jokkoo ki yar téléphone am. te nekk fële. waaw pour ne ko dañoo bëgg ñëw ci hôpital comme ñun ñu ngi Côte d'Ivoire. mu ne leen moom rek ko mën a gis. déglu leen tontu. sëñ bi naka yitte yi alhamdulilah maa ngi sant bu baax noo coono yooyu moom amul amul benn jafe-jafe léegi nag da ngay da bàyyil xel yaar malade toll foo xamante si nii doo ko mën a déplacer nii nga mën koo gis yaa ngi man mii di wax fi yow fii am naa samay sama jarbaat bi fi nekkal joo xam ne maa ngi moom ñoo nekkandoo ci euh, hôpital bi ak ñoo fa nekkandoo su ma demee ñoom ñoo may xaar ñoom suñ demee man maa fay nekk xaar leen kon ñun néewuñ ci hôpital bi yaa ngi dégg beneen bi tamit mooy ton bi ngay waxee nga xool ko bu baax a baax parce que waxoo gor ko ndaw waxoo tamit koo xam ni benn responsabilité ci boppam yaa ngi dégg Euh, xaalis bi ma ci fereet xam naa ne bu ci desee donc du du ma njort ni yéen mën ngeen ma koo fay mais léegi ce qui est essentiel bi mooy yow xaw ma fan nga nekk ci Côte d'Ivoire xaw ma fan nga nekk ci Côte d'Ivoire yow temps bi nga xam ne da ngay déplacé di dox di ñëw ci man wala ngay dugg oto di ñëw ci man bala ngaa yegg si tey diggante boobu xam nga ne mën na cee dee bu ci waree dee da ciy dee ci diggante boobu bala ngaa yegg si léegi bu fekkee kat yor nga xaalis nga ne ah ñaata nga soxla actuellement nii may la garab bi laa a jënd ak lii ak lii ak lii mo ma nga ni looloo gën mais fi mu nekk nii boo bu ma lay xaar ngay déplacé wu xaw ma fan ngay jugee ci Côte d'Ivoire nga déplacé wu ñëw ba yegg si te ëndaale woo xaalis ëndaale woo dara bëgg jël malade bi yóbbu loolu xam nga ni c'est catastrophe c'est catastrophe te malheureusement malade bi moom fi mu nekk nii nii nii nii nii moom médecin bi moom nee na actuellement nii du tey moom la ko kenn mën a gis moom waaw xanaa man mii maa fay maa fay du ko ko génn waaye du keneen ku fa nekk ku ko mën a ku a gis moom même ñi ma fa nekkal nii démb ak bërki démb amoon moom accès pour ko mën a kon xam nga ne instant bi donc il faut que ngeen xam ni man moom bu ma ci nekkee di wax ak yéen gauche à droite te ngeen nekk Côte d'Ivoire gii te mu wóor ne ni ngeen a amab xaalis te ay transfert yoo xam ne boo leen ci awalee xaalis wala ma ci jël kenn te jë merci nag ndax bi depuis boobaak léegi maa ngi ciy jugo ka daanu di jugo ka daanu te teewut mi ngi avancé yaa ngi dégg te li nga wax tamit nga ni bu fekkee que ni seen jëm bopp li ci man njortu ngeen li ci man njortu ngeen man mënu ma ci yaa ngi nax sa parce que lépp kàttan a koy def te kàttan ëppoo leen ma def te kàttan ëppoo leen ko kon bu leen bul waxee temps boobu noonu da ngay xool nuñ def ba négocier ba waxtaan ci système boo xam ne mooy jëlee kii ci état bi mu nekk mais état bi mu nekk nii booy waxee ci cadre a kii mënul nañ déplacé mi néew bi fi boo ko déplacé mu dee ci biir oto bi nag wala nga déplacé ko mu dee hôpital bi doo lor docteur bi te pourtant moom moo nekk responsable bi na xool yenn maanaa ñu xalaas dégg Njaay muy wax de dëgg na mel ku nekk ci dëgg de balaa muy egg ca la comme la xewoon si laa lewoon ñu del koo wax. comme yaa ngi biti réew. waaw sama mbokki sénégalais yi nekk France. Mhm. laay ñaan. Mhm. wax ji waa ji di Éric Zemmour wax. Mhm. bu ñu ko yëgal seen yaram. moom lu mu waxati. wax ne que yi nekk France sénégalais yi ci yëpp. Éric Zemmour wax loolu. <laughs> voilà bu faloo dina leen roñ bëgguma ci woon sax jaaraat. mais dama leen di ñaan rek. parce que loolu moom moo koy wax. waa Paris Saint-Germain duñ ko wax. waa mm-hmm. Olympique de Marseille duñ ko wax. Mm-hmm. Euh, waa ji jiite France manu Macron du ko wax moom moo koy wax. li mm-hmm. lay wërësul yi bu mu leen metti benn yoon bu mu leen metti benn yoon. dañu bàyyi mu jàll parce que kuy def aussi ku la wax nga tontu ko te réewum jàmbur la ñu nekk. dañu faa jóge dañoo jóge suñu réew dem fa am lu ñuy wut. am yu ñu fa téye ñii njaboote leen fa bàyyi ñii liggéey leen fa bàyyi ñii ak lu mu ci mënti doon. réewum jàmm nag boo fa demee ku topp sa ginnaaw di waxit yow bàyyi rek bu mu leen metti bu mu bu et puis ki wax sax la ñuy njëkk la ñuy njëkk xool mooy. kan d' abord voilà après li des nag ñu muñ ko. xool ay ay waxam xam amul crédibilité exactement xam nga ba pare nag njaay ñu defaraat suñu toogaay nag. mais olof nee ah, na lu dagg lu ne morom jëlee wuy euh, fekki xam <coughs> donc kon yow li di doomu aadama ca moom la réew nga ne ñii ñooy ñii. Mhm. ça veut dire que woo ñooña. ñoom dañoo nañ bàyyi mu jàll rek. ñoom dañoo fàtte leen bu leen metti parce que gis naa ñu bëree bëri ñi ngi ñi ngi aalu c'est normal mhm. aussi. Mhm. parce que góor gu nekk góor la. mais bu mu yàq seen liggéey bu leen déconcentré bu mu leen sax jaral di ci wax. lay France ñoo ñu colonisé de waaye ñoo leen xeexal seen indépendance bokk nañ ci ñi leen may jàmm de seen stabilité bi am seen réew. bokk nañ ci li gànn naan waaye ñii li ñu xam ci ñoom yëpp mënuñu ko. wallaay dëgg la wallaay dëgg la waaye ñoom it lépp lañ mën a am. fii leen xeexal ñoo leen xeexal ba ñoom li ñu am léegi nag. Euh, fii nii. yaa ngi bitim réew ba tey. waa ji balaa ngay dem fa waaw waaw waaw. ah ayca ayca waaw dama dama dama dama. ànduma ak moom de. man mii di. ki doon wax. ah benn pàcc nag ànduma ceeg moom. te xam nga lu garaaw. Hmm. day gëm loolu mbokk yi mais man mii ma ko wax ci ki tëdd feebar de moom gis na trop. Ah, nit ak mbokkam nga bëgg koo gis nekk ci même dëkk bi. Mhm. ngeen ko koo gis. li nga yor envoyé ma ko man rek maa ko mën a gis. dafa man moom dafa téye sama xel bu dee maa moom sama xel. Ndiaye mi woo naa ko moom mi. moom mi moom waaw. Mhm. xam loolu lay wax mbokk yi mais man moo ko wooyee ba mu xam ne rajo la daf ma bind. dafa coupé bind ma ne ma saa yi mi ngi ci jàmm dara jotu ko. moom loolu la la wax waaw. kon baax na donc nag. yow topp ko rek mbir maa noonu. lu xew fii bitim réew encore ba léegi Ndiaye. Mhm. Euh, ñii ñu ngi yëgul waat mooy sénégalais yi ñu jàpp ci Mauritanie tegoon nañ ko fii mhm. ñoom. ñu doon def immigration clandestine. Ah. dafa am Sénégal yoon dem immigration clandestine ñu jàpp leen ca Mauritanie ñii ñu ngi Nouakchott ñii ñu ngi à 700 kilomètres de Nouakchott. pour prison yi bëggoon a départ Mauritanie dem. dem waaw. waa ah, day na def foofu waaw turu prison yi laa laa laa jàppul parce que am na ñu may woo di ma laaj turu prison yi foofu mais xaw ma ko xam naa ne daal benn baa ngi Nouakchott benn baa ngi à 700 kilomètres mais nag bëri nañ fa lool pour ñu dimbali leen. ak prison Afrique yi ni ñu méttee. <laughs> maa ngi nuyu waa maa ngi nuyu gendarmerie frontière. xam naa xam nga prison Sénégal neexul. Hmm. xam nga neexul moom prison déjà benn neexu ci. Hmm. gis nga bu la yàlla yamale woon ca ba nekk Guinée. baa mu yemale la ci maison d'arrêt correction bi nekk Cameroun doxal fu ñu jëm. Ah, am na prison yu neex fu ñu jëm. prison da lekk di naan te doo fay. di sangu doo fay courant yan prison. yëpp. ban prison ngay fay ah, naan gi tamit il faut ko de. da ngay lekk di looy fa nekk yàlla na nu génn. kon xam nga ne neexul am na ñoo xam ne dañuy fa nekk yàlla na nu génn. wuy ma. daa neexul ci kenn. wuy ma Ndiaye. Mhm. Mhm. Mhm. kii xam li problème hmm. maa la koy wax sànq suba moom dafa nekk ci dëkk yi fii senegal am benn waay bu jógee fii dem foofu dafa liggéey. fi mu nekk. waaw maanaam moom ci région yi la nekk. waaw maanaam bi fi waaj jógee di dem ay mbiram doxul woon. mais ci région yi góor la wala jigéen. góor la non jigéen la bu nekk ci région yi. am benn waay bu góor fekk ko foofu. ñuy liggéey ñoom ñaar mu koy jàppale ba ay mbiru waaj commencé dox. fami yi xamante ba desul loolu takkante. ah dañ doon bëggante. waaw ba mu ko fa fekkee la. waaw ok ñu nekk ay at ñoom ñaar. Mhm. ba desul lu takk. Mhm. papa waaju xool ko daal ne sëy bi mënut hmm? waaw ndax bokkuñu waaso. bokkuñu waaso. Ah. kii lii la kee lee la. Hmm. li si dañ ko seen wërsëg ànd na ñaar bëggante nañu mais papa daal nee na moom. ndeysaan bokkuñu waaso bokkuñu waaso. ndeysaan léegi kuñ ciy déglu ndaw si jox ñu déglu. dund loo xamante ni lu métti la parce que des années des années dafa am waaju ma nekkaloon waa ji ñuy génn mën naa ne waa ji bi mu perte ñëw fii sax liggéeyam dama ci doon jàpp waaw nekk ak moom ay mbokkam xam ma ma xam leen may partager lépp lu ma am bokk ko ak ay mbokkam mbokkam yi bëgg ma trop waa ji tamit bëgg ma ñu dem ba nga xamante ni mu ñal naa ba tey liggéeyam dem na ba am fu mu toll waa ji ne moom man dama lay takk comme deuxième nekk ci procès yooyu procès yooyu ba mu dem waxtaan ak papam papam ne ko man dama su ma sañoon dama koy seet waaw ndax seen wërsëg ànd na wala àndul mu ne papa ji garaaw mu dem abi fu mu dem seet ñu ne ko sëy bu amee sëy bi baax na wërsëg ànd nañ waaw dem ba benn moom moment paa bi toog woo doom ji ne ko man ma déranger ci moom mooy lim doon tayoo waa ji bëgg ma may dund lu metti barke Mouhamed toll naa guddi yoo xamante ni tey tey tey xaru bu doon dagan na kon tey du ma dox damay xaru parce que am naa ci defet parce que musuma woon fokk ni yooyu mi ngi am ba tey yooyu mi ngi am ba tey parce lii la diw la des années ku ñëw wax ma waxu sëy ma ne man góor laa joxe naa sama kàddu ku ñëw ak loo mën doon ma la man góor laa sama joxe naa ko déjà bu doon sax loo teg ci diine baa bi dem ba benn dernier moment doomam ma perte des années jàppale doomam ci liggéeyam loolu du ma ko réccu ay presque waa ji année bu jot muy tabaski korité e màggal am na lu ma warloog ak ay famille ay mbokkam bu doon sax yaay ma bañ garaaw mais papa ju dem taxaw te tegu ko fenn ci diine lu dul diw xalaas dañu léegi nag dégg nga élément bi. waaw xamoo ki bëgg ban waaso la bokk xamoo ki bañ ban waaso la bokk. Mhm. wax nañ ko nag. waaw dafa yoo xamante ne jii moom du respect sax ci réew. Mhm. ngay toog di ko wax ci rajo. Mhm. moo tax ñu dagg ko noonu mais daal boo nee waaso moom. sénégalais xam nañu. waaso mooy géer beeg géwél beeg lawbe beeg ñeeño beeg yooyu. donc loolu mooy problème manque de respect. ak ñàkk xam sa bopp. weesuwul nga naan kii lii la ak kee lee la. loolu ku ñàkk xam boppam dëgg moo koy def. xanaa xamoo benn yow ki nga naan lii la ak lee boo demee ay maamam ak moom baayam ak moo gën sa yos yow. non mais quand même il faut ñu arrêter quand njaay Ndiaye bi muy wax léegi ci Zemmour sama xel mi ngi naan est-ce que du ci ñun la commencé d'abord. non mais euh, si. ci waxu Éric Zemmour bi ñun la commencé ba pare. ay daa raciste bu tubaab waxee lii ñu naan dafa raciste ak ñun ñoo njëkk a rafetul njaay ay man may géer kee mooy géwal man maay géer kee mooy ñeeño kii mooy lawbe yooyu ci racisme gi gën a bon la bokk. mais nag seetlu naa ne xëy na bu njëkk ba ak ci yenn dëkk yu xaw a sori. Hmm. la ñu koy dund. mais tendance bi moom mi ngi changé. changé wut nànk de. mi ngi changé surtout ci jeunesse mi mi mi ngi changé. gis nga booy léegi. Hmm. japonais sax bu ñu ko bëggee may leen ko. mu ngi changé mais Ndiaye xam loolu lu muy indi aussi. da ngay téye sa doom fii. Hmm. ne ko wéy doo takk diw parce leen waaso. booy bi dem tukki indi la jabaru thaïlandaise. <laughs> si wala wala érythréen bala nga naan baax naam baaxul fekk ak njaboot judd. am nañ cinq doom ñoom dañu bëgg doom. <laughs> loolu fooy jaar. moo tax ma ne la xam nga xamoon loolu la Ndiaye souvent dafa dafay indi benn affaire tam ñu dal ci kaw ku góor ki. par exemple soo demee ñu bañ laa may kii nga dem forcé takk keneen xam nga ñu naan noo déglu ay waajuram loo da ëllëg ñu ne sa ba sa waajur waxee da ngaa bañoon. loolu tamit day indi problème aussi mi ngi changé tamit mais changement ci ci kan lay kan sa waay waxi waajur am na solo mais waxi yàlla suñu borom yooyu yëpp moo gën a diis waxi yàlla a diis yi waajur xam luñ ko sant uh-huh. mu topp li yàlla non waxi yàlla gën a diis lépp waajur bu ne dañ ko sant mooy mu topp ci li yàlla doomu aadama doomu aadama nga bala ñuy sori hmm. bëgguma kon commencé ndax dama doon bañ émission bi di triste uh-huh. Lamine Ba Lamine Ba men correspondant RFM hmm. à hmm. Ziguinchor ñu ngi koy masawu di ko jaale papam moo génn àdduna di ko masaw bu baax a baax. yàlla na ko yàlla yërëm xaaral tamit damay dugg sama kër nag euh, point E sama ñoom yaay tuuti aan ñoom Kumba aan ñoom Ulay aan ñoom ñëpp dañoo ñàkk seen yaay muy sama maam. donc maa ngi leen koy jaal bu baax a baax ñoom Malick Diagne ak ñoom Ibou Diagne ak ñëpp maa ngi leen di mm. jaal suñu maam jooju ñu bokk. yàlla leen yàlla yërëm xaaral waaw yàlla yàlla yërëm leen. 77 150 17 17. tey allo présidence nag amul. moo tax animation gi tey dama mm. koy yóbbu ci ambiance stade moo bëgg anticiper suba liy xew ci stade bi mm. waaw ah, moo tax animation bi ku yor ndox. ni nga koy waxee sama ma nañ la jox caabi stade bi nga ubbi ko 5 heures du matin. kan moo sport man moom suba du ma xëy si moom loolu moom pour mu leer leen. defuma xalaas xëy si ma man damay teel a dem stade ba pare xam nga stade bi day am animation ci biir stade bi. waaw pour ngeen ñaanal ma ci léegi euh, Ndiaye comme ni nga waxee ambiance stade bi ku yor sandwich mën nga ma indil fii ci studio bi ku yor euh, ndox wala café indi ma si studio bi. pour. am aya ni nañu xool ñi ñi fi ñuy jóge ñu indi leen ay <laughs> sànni ak yooyu yëmbal ñëw fii di animé muy ambiance esat doo ma indi sànni <laughs> waaye nday mi yaa soxor nag <laughs>